kilifa diine yi daal. léeg-léeg dinañuy wax loo xam ne mën na ñagas ci yow. mais euh, boo boo ñi ñi ñi maîtriser fiq xam nañ ne des fois ces mots là peuvent être courants pour celui euh, bi nga xam ne yenn baat yu am teggin yi du ko xam. donc Iran jàngalekat la. Mm-hmm. xam na ne mm-hmm. euh, am na yenn wax yoo xam ne bu ko waxee. Mm-hmm. le commun des Sénégalais ne va pas piger tout de suite après ça n'engage que lui nag. Mhm. donc mën na ko wax parce que man euh, li mu wax bu ma ko doon wax dinaa ko waxee neneen. Mhm. parce que jàpp naa ne neneen noonu falaay mën a yem. Ah. Euh, donc mais <laughs> moom en tant que jàngalekat. <laughs> Uh-huh. moom moo jàpp ne bu ko nee dajj noonu ñëpp déggandoo ko. Mhm. mu waxee ko noonu. alors kilifa diine mën na wax lu ñagas. kilifa aada mën na wax lu ñagas. waaye roy ñëpp ci seeni wax ak seeni jëfit digaluñ ko. maanaam képp koo xam ne yaa ngi koy naw ngir diine mhm. na doon farata yàlla ji nga xam ne moom la digle ak sunna saydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mhm. loolu mooy la cay mataray mhm. la la nga xam ne nag du ca mataray mooy loo xam ne moom bu ko dee def day wax ne lii man la engagé loolu dañ koy bàyyeek moom mu gérer ko parce que li tax mu wax li mu wax problème personnel la xamali ma la euh, am na ñoo xam ne benn yoon lañ ko def ndax ka leen ko defal neex na leen <laughs> man sama rakki bàyyee ma ko defal te neex na ma moo tax jéemaatuma ko keneen ak keneen noonu rek. tout à fait ah. la banalisation euh, li nga xam ne mooy wàllum euh, sexualité wala sax li nga xam ne mooy sëy ñu koy gis aussi suñu ay euh, télé yi mhm. te da ngay gis carrément tubaab yi ñoom mhm. xam ne ne loolu dafa dem ba yàq sax seen ay jeunesse ñoom ñu ngi koy commencé xool seen ay